Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee. Vous êtes établi au Sénégal ou à l'étranger et vous voulez une gérance efficace et transparente de vos biens immobiliers villas appartements maisons bureaux, commerce immeubles. Et vous voulez faire louer à des conditions de transparence, d'hygiène et de sécurité. N'attendez plus. Contactez vite l'agence Techno votre agence de gérance immobilière qui vous propose des services de gestion locative rapide, rigoureuse et transparente. L'agence Techno Habitat vous assure en même temps une totale sérénité, où que vous soyez.

kaddu yi nga xam ne moom la sëriñ naa wax di ko rafetlu lool ci dal gi ak teey gi ak yar bi te li mu nett lépp doon lu leer loo xam ne noonu la doxe woon ci kanamu sëñ Muntaxa ak sama kër yépp di ko sant bu baax a baax a baax lépp loo xam ne waaye mi ngi koy wut wute ko ci ak dal ak yar ak teggin dana am loolee dañoo wax ni doomu aadama lu ne mënees na koo booleeg moom sàgg ci ab sagam ba des yar ak kenn du ko boole kenn di ko sàggi ab sagam kon jërëjëf yàlla na yàlla fayal kàddu yi nag moom dama koy gàttal ndax Mamour mii moom laa jox kàddu ji tey dana wax ci turu sëñ Muntaqa dana wax ci turu soxna Baali ci loo xam ne maa ci jox ndigal mu yegge leen ko waxtaan ci ak yéen ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp njëre leen jëf xabli safinatan bi kullil janna min daaratil minnan yaasal minna ataaniyal markabu fii daari minnan inda tasin tadxulani daari minnan ginnaaw bi nu santee yàlla julli ci yonent bi di sant Serigne Touba ñaanal Cheikh mu Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér naal yi mu naalal lislaam naala ko Serigne Touba mu àggale ko ak sagom te nu ànd kook moom ñoo ngi siyaare kilifa yépp di ci jiital Serigne maam Thierno Mbacke mii toog moom Cheikh mu Mountakha bu nu ko nuyoo nuyu mbokk mi baax yi mu dendal. sëriñ xaadim mbàkke moom di soxna xadi asufal ak sëriñ mu safaa mbàkke moom sëriñ si asufal monsieur Mamadou Basir ak mbooleem njaboot gi fi teew yépp nuyu sëriñ naa buso ak sëriñ mouhamadou fadilu buso mii toog ñu gën koo min sëñ fàllu buso tàmba mbooleem seexi sëñ Tuubaa yi fi ne buntu kër yu bari wala li ci ëpp ñi fi ñoom ñëpp ñi ngi leen di nuyu ndax bi sëriñ bi wootee li wooteem bii di tas daaray baayam ja di wax ni njàngalem kese moom dañ koo weesu léegi dañuy woote ci imma ñu baree nga fa woon ñafa des nag nangul ko loolu raw nañ ña dem te bañ toog kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare mbooleem seex yi ak fuñ ci mën a bàyyikoo ci mbooleem buntu kër yi siyaare nañ ñëpp jox leen ne wàccuwaay wi sëriñ maam Cerno nag mi ngi sant mboole waa Gabon góor ak jigéen mag ndaw ndax cant gi li ci jiitu nee na cofeel gi ngeen am ci moom ba lu mel nii bi mu amee li njaboot gi yaatu yaatu ngeen taamu jëmmam ji moomit bi ngeen ci waxeek moom ne ko danoo am yéene nga ànd ak nun liggéey bi dalee ne man de xawma dara ci bopp moom ma sama bopp damaa am kilifa te moom lay déglu moom nag lu mu wax danaa jëfe loolu mu jël seeni kàddu ak seeni yéene yóbbu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye sëñ Mountakha ci ngor gi ci pas-pas gi ci murit gi xam ni liggéeyal sëñ tubaab moom ku la ci woo dalaa bëgg a dimbali mu jox taaw mu baax bii ndigal ne ko lëkkale naa la ak waa Gabon farale naa la ak waa Gabon dendale naa la ak waa Gabon maam Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko nekkal ma Gabon te nga yóbbaale fa sama jëmm kon nag loolu nee na moom yéen ñi ko defal feex googu ba mu am loolu ci sëriñam boobu di yaakaaram nee na kon yéen it amul seen pay ndax lii nag liggéey la boo xam ni sëñ Maam Thierno nee na moom de sant na ci sëñ Touba ndax buñ nee 7 juin 63 lañ inauguré jumaay tuubaa ña jàppoon ca liggéey ba te fekkee ko te defoon ca seen alal jàppale sëñ Fallou ci loolu ba loola taxaw ñoo ne loolu ñu amoon keneen duutu ko amaat jumaa ju fi judduwaat it tax ñu ne jumaay Touba maa yenn woon xeer ya maa indi woon feer bi maa defoon lii maa doon dajale sas wi maa demoon ndog jàppoon naa ci liggéey raay ba yooyu moom amatul faat na kon nag day am yooyu nag ji ci ay liggéey sañ tubaa nga xam ne liggéey la buy tàmbali mu leer na ni yow boo ci feeñee dootoo nëbbu te bu xasee ba am ab xarnu dana ñëwaat ci kanam ñu koy waxtaane naan ña nga xam ni ñoo defoon karabaan bi ci maa yomba liggéey lu tax maa yomba am jumaa lu tax daara maam jaara fi lu tax institut ne fi ñu naan xale yii maa yomba dañ mokkale alquran ana ku sos loolu ñu ne kat Serigne Koso Mbacke moom Serigne Mountakha moo àndoon ak waa daayira Gabon bi ak sëñ naa bu soog ña ca aju ñu taxaw liggéey boobu ak ñoom sëñ Seex Meng ba mu agsi fii sëñ Koso nee loolu kon tawféex la bu rëy nee na loolu nga wax it ak li yi bëgg nee na moom dégg na ko de waaye nee na moom mii toog du ci jéem dara du ci wax dara ki ko fi yebal bu demee ba ca moom dana ca wax ak moom te kooku rafet na njort ci moom it ni bu duggee ci noppam ba mu ñaan ci li ngeen bëgg da ngeen ko am na ngeen ko bëggee. nee na kon nan dalal suñu xel bu baax sëriñ bi daal mu ngi nuy soññu ci ñu gën a góorgóorlu boole suñuy pas-pas tëng ko mu doon benn nee na nag loolu ñu wax ni nañ boole xol yi nee na ñaan googu moom sëñ Tuubaa ñaan na ko te yàlla nangul na ko ko kon képp koo xam ne jëloo sa xol dugal ci sa morom def ko ni sa bopp lay yéex ci yow lay yéexee waaye liggéey bi moom ku puus mu dem ku puusul mu dem ndax watal xulubana ala tawadudi bila tanazuhin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaburi wala tabaxudin ne wala tanafuri xataa nasira muslimina xaasixin wal muminina muxlisina saalihin ñaan googu bi ko sëriñ bi ñaanee ci ñun nag yàlla nangul na ko ko kon ku ci tardé mbaa nga yéex yow ci sa bopp la murit bu ne nag li mu yéene boppam lu metti metti na ko yéene moromam ab nawle nag nit du ko wutal boppam ci liggéey sëñ tubaa Cheikh Ibra Fall dafa ni bi ma kër sëñ tubaa aw ma fa nawle te wutalu ko saa bopp loolu nag boo gàttee dégg da nga naan nawlewul kenn waxul loolu de aw ma fa nawle mooy jàpp na ni ëtti bépp moo ko war a bale amul su ma fii ba fee Cheikh Issa jël fii ba fii sëñ Daaru Assane jël fii ba fii nee na moom damaa jàpp ni lu fiy liggéey man képp maa ko war a def maa war a root maa war a bale maa war a taxan maa war a joxe àddiya daana ñàkk ma fa ñàkk wutal saa bopp nawle nag moo may lii ma am tey kon kenn ku ne ci ñun sëñ maam Thierno nee na léggéey bii bu ci wutal sa bopp nawle jàppal ni lépp lu def maa yomba yaa ko war a def caravane bi yaa war a jiitu yaa war a gën a sonn yaa war a gën a joxe addiya yaa war a ëpp pas-pas ba keroog bu liggéey bi taxawee bis bu ñuy séddalee añ yi nag nga xam ne sëñ Tuubaa ma te liggéey bi nag boo ci nekkee sëriñ bi nee na boo dee séntu pay gi nee na doo ko gis da ci ne sëgg ndax pay gi doo ko wëri da ngeen di daje sëñ bay jaxate dafa ne bàyyi bay te muñ a muñ ngir ñi ngi lay toggal añ baykat bu ñu toggal añ nag moom na yittewoo rek mbayam yow newal ci liggéey bi rek li pay gi moom da di daje te sëñ bi lu mu ñaan yàlla yàlla defal ko ko te moo ne wax di xawaa ija lësiina daamoo fii xidmat yi waxab maa maaraamu ñi koy firi nag daamoo gi dañ koy bàyyi sëñ tubaa neewul yàlla fajol aajo ñi may liggéeyal ñi ci sax la wax ñi ci sax mooy dañuy sëñ bi dañuy sas ñu joxee suñuy xari tabaski buñ fa jógee àddiyee tam xarit ñëw karawaan maa yomba jóge fu wàcc màggalu Tuubaa jóge ci dem gàmmu liggéey bu jeex ñu naal beleen ba keroog ñu koy fekke am murit du wàcc doy na sëkk nag murit boo xam ni jéem ngaa wàcc wala bu la sëriñ ne jërëjëf nga defeen da ngaa war a teg sa laxasaay boo ñëwee maa yomba ji xam la tegoo ko fenn moom képp la woon kenn dalalu ko der kenn teewlu ko satala bu ne sam laa dimal xamidow kenn danaa balol ko alxamdu yooyu matte fii ba léegi ñu ngi matte te yooyoo ko daan matte te moom daawul am seng-seng wokkatu te gis nga fii ni mu mel ak ni mu mettee mu nekkoon fi moom cum tundum ngir lan sunu tawféex ñun liggéey boobu mu liggéey nag ba kenn ku nu ci ñun nga am ci tawféex am ci xéewal yaatu ba di ko sant saa su ne moom dey day bànneexu wu ci fekkeewu ko nguuru wu ci 10 août 1895 lañ ko mënate woon indi ko génnee ko ca këram nga ba 19 juillet 1927 bi mu fay delluwaat mooy bi muy ñibbi ci boromam kon moom amul noflaay benn yoon dundam gépp jaay na ko boromam te jaay gam ko jaay boromam mooy taw tawfeex ñun kon sëñ Koso nee na lool mi ngi ñu ciy gën a soññ ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi te xam ni liggéey bi rek moo fi ne lu jeex ñu naal beneen liñ ci yéene daal nee na kenn ku ci ne li nga yéene ci sa pas-pas wax ni am naa yéene def ko fii ci maa yomba nee bu soobee yàlla di ko def ndax sëñ bi moom lu lu ko waay yéene rek di nga ko ko defal ab murit nag warta wax euh, déedéet buñ ne woon bu subaakat Libreville gépp murit dañ ko war a moom yow boo xasee ba ne déedéet rek yow bokk ko ci ñi ñi ko war a moom ab murit danaan waaw ba noppi doxeeg yéeneem sëriñ bi katandu ko lii nag doonul njàmbaaru kenn ab murit lépp loo defal sëñ tubaa rek du loo ko dimbali loo ko jàppale waaye dangaa gàttandu ñaanu di sëñ tubaa kon gàttandu googu nga xam ne nag am nañ tawféex bokk ci ñi gàttandu ñaanu sëriñ bi sëñ bi nee na nañ ci sant yàlla kàddu yi nga xam nit moo bàyyi ko woon ci soxna Bali mu tegoon ko ci loxoom moom mii nga xam ni moo fi jëmmam di fi jëmmi sëñ bi noonu mu ko waxee rek loolu la soxna yi wax nee na moom mi ngi leen di sant ndax tawféex yi ngeen ko defal jël bis bu toll nii tànn ko ci biir njaboot gi génnee ko moom ne ko bis bi jox nañ la ko neen loolu doy na sëkk tawféex ndax bis bi nag moom bisu pajug aaja la yàlla gu wóor a fi ne amul noflaay ay coono rek la te coono yëpp it coono bànneex la sëñ maam na mii noo àndoon màkka bi mu jugee màkka ak léegi matagul ay ayu bis te nag bamba day bee ca Amérique ña ngi ko fa doon xaar ba këyitam yàgg génn lépp lijjantiku ak délégation bi mu war a àndal waaye da koo teg ñëw Gabon bi muy ñëw fii du ak manam te xam naa ne ay coonoom it mayu ko ko wér gi dëggi dëggit mayu ko ko ngeen ñaanal ko sa dolli ko wir dolli ko kàttan may ko gudd fan sëriñ ak murit bokkul te taalibe yi sëgg nañ waaye seen xel yi sëggul kii moom ab murit la kii toog ab murit la saa bu xëyee suba ngoon gu dégg bëccëg ngërëmal sëñ tubaar rek lay sàkku mi ngi ci tey sëñ bi takk laa saay boo ko neexoon ne sama baay mooy xalif général des murit toog këram ku siyaar sëñ bi jabal ci moom yëkkati àddee jox ko waaye deful lool de moom waar yu moo ciy jiitu te Cheikh Ibra Fall dafa ne woon yaara mbay mu ne ko faal mu ne ko ndax xam nga lan mooy jëwriñ mu ne ko boon ci dimbalee ñu jël mu ne ku ñuy jiitu ca waar di ko ca mujj rek du ko ab jëwriñ ñooy njëkk ci waar te may mujj ci waar ñëw gii nga ñëw maa yomba noon ngaa toog Libreville na ñëwoon naa daaw yebal sëñ Moustapha Cheikh ak seen xaadim mbaa soxna maam Fatimé te bu ñëwee toog fii dan naan sëñ koso nee na te kon di ko dindi ndax yaa ngi Libreville waaye nag 1600 kilomètres ci aller retour yi ku ko mën a ñëw ba toog fii ak coono yi nga tegoo loolu Mbàkke nag nun ni ànd ak yow it du tee danañ la sant gërëm la sunu yaakaar gën naa dolliku sunu xel gën naa dal boole gi sëriñ bi boole ak yow soxna Baali boole nu kook yow wax dëgg yàlla nun am nañ ci rafet njort yàlla na la yàlla yàggal may la gudd fan may la wér sëñ maam Thierno nee na it sëñ Moustapha Seex mii mi ngi fi moom demagut sëriñ bee ko fi yabal ak sëñ eh, Isaaxa mu sëriñ ba Basiiru mi sëñ bi dénk liggéey soxna jaara bi nee na dana duggaat ci kër yi def porte à porte dajalewaat soxna yi ñu waxtaane nag liggéey soxna jaara soxna jaara nag sëñ tubaa moo ni boo ñëwee fekk ma fa mbaa boo toogee ma fekk la fa kon liggéey sëñ tubaa nag soxna jaara moom dara gënu ko cee gaaw kon sëñ mu Moustapha ngi noonu sëñ bi nee na yéen a ngi noonu gën na leen a boolewaat ak moom gën leen jaxaseeg moom soxna maam Faati Mbàkke mu sëñ Seex Asu Faal sëriñ bi nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm nee ndax bi la sa bàjjan yabalee ne la boo demee ci sëñ koso nga bàyyi koog lépp nee na yow bàyyi nga kook sa lépp lu jiitu soxna si di la yebal boo gisee délégation yi mënoo koo xàmmee mooy lii du fii lañ ko créé dañ koo togg ca daaru minam doon fa benn takku di benn say sëñ koso di taawu kër gi bu nee dama ni ñu xam ni sëñ taxaa wax bu nee dama ni ñu xam ni soxna baalee wax moo tax bi nu ñëwee fii dara soppi kuu ci loolu rek ci lañ continuer tarixatu adda bi rahmatul sahir kal ummi wal abi wa tawaqirul kabir wa in tujaaris man yakun akbara min koy xaayalu saamanan wa tara kan yorom musanan li xaaja box di loolu li laay tilkal xaaja kon nag sëñ Fallou Bousso ah yow la ñëpp di déglu damaa bëgg na kenn ku ne boo dendee ku doon nelaw boo ko yeewee yàlla na sëñ Tuubaa faj sa aajo bu ko defee nu nu ñëpp jóg toog waaw nañ ñëpp jóg toog ñu xam li nu fi dajale waaw bërki démb nag bërki démb bërki démb libre Libreville sëñ Fallou dafa tàmbali waxtaan wu am solo waxtaan woo xam ni ah keroog defe naa ni saal bi kenn ku ne am nga loo yëg keroog nag da nga koo tàmbalee ci ay asamini laaw inda jeewali iblis is naa day toxoo bi yaawali nafaal xayr laaw xablu fi ndari bi ahli badrin usuli ka dari nafaal xayr laaw fi ndakaaru kulla asani jaruhu makkaaru allamani rahmanu fi safina bi annani haddi musil madina bara anillahu lada konakiri min kulli jalibi ilal manakiri asxaba anillahu fi karambasa xablu mubaris wa ani xalbasa daxaan rahimu inda dawmi loxoo ma ahna ani tasawumi yasaralil muna lada limbri man xaadali ma haaba an kulli kero da ngaa toj Libreville tasaare ko bañ dégg ko lii xaada li badru usuuda man za zaxal waasiya wal xasuuda yaqudul xeysu akuna laaw tabsira laa ilaaha illa laaw saaxali xëy laaw fii maa yomba ni sëñ Fàllu nag ñoo ngi maa yomba maanaam maanaam mbokki nañ ko neexal dañ jox ko ko déedéet ko jox addee sëñ Tuubaa kon na ñëpp teewlu sëriñ bi nee na nee na am naa mbégte lool ci li taxoon mu jël kàddu ji jox ma ko nee na sant na ci yàlla bu baax nee na bi mu yëree mbooloo mi xool leen daa am lu sama xel dem nee nee ma bëgg leen koo nettali ngeen bañ a xeeb mbooloo mi nee na ci ñaari nettali la benn bi maa ngi ko jëlee ci sëñ Abibu Mbàkke nee na sëñ Abibu mooma defe naa mag la nee Cheikh Modou Moustapha màggal gi mujjee woote nee na te moo mujj law ba doon màggalu Tuubaa gii donte du woon bis bi nee na ndax boobu màggalu jumaa ji rek la woon dan dan daje di waxtaane mbirum màggal gi di ca sasu tey bay sas yi nee bu noppee rek nit delluwaat seeni kër woote na ko nag ay yoon doon soppi bis yi ba bi Cheikh Mohamad Fadal dikkee moo soppi bis bi nee nag màggal ji nga xam ni moom la sëñ Modou Moussa mujjee màggal ba mu dajalee kilifa yi ci ak ron ak garab la leen dajale benn garab gi daane woon ci biir jumaa ji nee na daggagun ko wala mu ne ci wetu jumaa ji nee na waaye daal ci ak ker lañ toog ci waxtu yor-yor mboolem kilifa yi màggal si daje fa nee na te ker ga feesul nee na ker ga feesul loola nag moo tax bu ngeen xoolee ci jotaay bii tey nee na bu ngeen xoolee ca jotaay booba du ngeen xeeb seen na jotaay bii. waaye bu ngeen ko xoolee ci na man ngeen. Vous êtes établi au Sénégal ou à l'étranger et vous voulez une gérance efficace et transparente de vos biens immobiliers. Villa, appartement, maison, bureau, commerce, immeuble. Et vous voulez faire louer à des conditions de transparence, d'hygiène et de sécurité. N'attendez plus. Contactez vite l'agence Techno Habitat, votre agence de gérance immobilière qui vous propose des services de gestion locative rapides, rigoureuses et transparentes. L'agence Techno Habitat vous assure à même temps une totale sérénité, où que vous soyez. L'agence Techno Habitat se trouve à la cité Mermoz, face ancienne piste, villa numéro 89. Contact Agence Techno Habitat, la clé du bien-être.